Bienvenue sur Salam Vision. Mama Saka. jaggandu jotaat journée bi nag nee naa la mise en place bi ni lay demee mise en place bi dinañu am panel de formation. en prise de parole en public waaye nag journée bi danañ fi amal li nga xam ne moo jëm ci développement personnel waaye tamit il faut nee naa la Kër Massar lañu ne il faut nag mi ngi woo képp koo xam ne rek bëgg ngaa xew bëgg ngaa xam li fi xew donc vendredi lay doon le 2 décembre à 10h. ah maaleykum salaam. Fatima ñi ñan la. ca ma ne ko nag ni ma leen ko waxee woon rek kii sama borom kër la waaye gëj naa koo gis ndax bi mu waree ay ci man yàgg na ñëwul nag waaye tey yaakaar naa fekk si na ma nii la ndax sëy nag moom dafay neex bi nga gëjee sama kër yàgg na waaye dox dox daje. man nag dama la damay laajte di laajte ba benn jour ñu ne ma Fatima daal toujours dafay dugg fii ndëkkate yoo fii lii moo fi am. Hmm. yow kañ laa la gëj a yii yii la mu doon yii la mu doon. kon yow xam nga fii. wax ma ba pare lii lii ma gis yi affaire yi lan la ba pare. xam nga fii kon. dama doon laajte ñu ne ma ndakate fii dafa am ñu fii defar yu neex yi ñuy ma ne xaaral ma yoo yow fii ngay ñëw ay yii nu mu tudd. fii mooy IFHOT. man kay lii tax ndakate toujours dama doon romb fii bu ma rombee gis nit ñi bare ku dugg sa morom dugg ku dugg sa morom dugg xam nga ñi ma fi doon gis ñëpp. ay eh, nations naa la lekk rek nga bëgg. waaw may ma rek may ma. xam naa la lekk te yow doo lekk lu bon woon loolu. doo lekk lu bon sa juróom-ñaari jabar yi nga am defal ndànk rek sa juróom-ñaari jabar yi nga xam nga ne man dong maay xam yu yu baax yi. waaw léegi nag danga may déglu lu tax nag ma ma ma ñëw war a laa sëpp nii dama la naroon ñëw rek dëgg la mbéj waaye comme gis naa lii si bunte balaa fa nii yëpp dama fiy jaar sa jour ma ñëwee gis nation nit xeetu nit. sa tur ma ñëw gis xeetu ne am na benn tur dama ñëw lii laa fi ma fekk fi ay nit wolof moo dugg ak génn xorey si naar yi di dugg ak génn lii laa fi séeréer yi dugg ak génn réel tubaab yi di dugg ak génn si taay soose yi wasey fi pël yi folia bu do tukulóor yi dugg di génn <laughs> bi dugg di génn bayti bambara yi la si njaago yi atta moom joolaa yi min jooyin saraxul yi waa amaa noomi ñoomin ko min xaw fin xaasoon léegi ma ñëw fekk sin waa si bunt bi ndekk ti nit ñooy ñëpp fii lu ñu le yow kay li tax li tax sa sa sa yaram gis nga ñooñu. Hmm. pen tey moom pen laa lay woowee. Hmm. doo dégg bi nga daan dégg gis nga ñooñu suñuy partenaire lañu ñun dañuy jàngal xale ba pare. Hmm. yóbbu la nga dem defi gis nga bu ñu la jàngale ba pare dañ lay yóbbu lu mel ni Maroc wala ñu yóbbu la Canada wala ñu yóbbu la Angleterre wala ñu yóbbu la Belgique wala fépp foo xamante rek yaa ngi fa war a defi stage di nga fa dem. boo demee ñu defal la stage loolu la école bi di jariñ eh, dañuy fay. loolu moo tax nga gis fi ay naar gis fi ay bambara gis fi ñoo xamante ne ni ay étranger lañ partenaire ñu ngi fi ku ci mel ni hôtel yu mag a mag yi ngay dégg ci dakaar ñoom dañu nekk ak ñun en partenariat hôtel yi nga dégg ñu nekk Asie dañu nekk ak ñun en partenariat hôtel yi nga dégg ñu nekk à l'extérieur aussi dañu nekk ak ñun en partenariat. man de mooy si nit xeetu nit ñooy yëpp duggalaan yi xaaral ma dugg waaye léegi léegi wuy ma wuy ma nan man nan lañu ma intégré si dama bëgg a intégré. oui ma xam nga nu ñu lay def dañ lay jox kuddu ak fourchette xam naa ne nag moom raxasuma mënu fi am parce que ñun bu ñu lay jàngal dañ lay jàngal li nga xamante ni moom mooy formel informel bi dañu cee génn li nga xamante ni moom mooy euh, lu lu yàgg yooyu dafa dafa xewi. ñun dañ lay jox fourchette ñun lekk wala ñuy lekk. dañ lay jox fourchette jox la kuddu jox la paaka nga lekk correctement civilisé ba pare ànd ak li nga xam ne mooy hygiène parce que doo déggee hygiène gis nga ko plate yaa ngi weex tàll. déjà ni ñu daggee carotte yi tegee ni yëpp xolli ko ba mu set. doo lekk sa waaw lii lii xanaa damay jël kay di soos fii te kon loxo may ma ndox. may ma eh da xaaral xaaral xaaral jox ko fourchette ma wan la itam damay jàng itam xam nga ma. waaw kon duma ma mën soos lii lii kon du ma ko mën jël di ko soos. xam nga li lan la. ndox la eh li lan la. Mm-hmm. waaye wax ja dafa bare yow jëlal lii Fatima jëlal lii dem bu fi nekk di wax dafay jeex de dañu koy eh, jël dafa nànk waaye dañu koy jël waay dañu koy jël eh, eh, lii la ñuy wax donc lii moo tax ñu war a jàng waa ndox xam nga day jeex déedéet lii moo tax ñu war a jàng ndax yaa ngi ne film nga sa yére donc lii c'est pas waaye jar na ko jar na ko jar na ko bàyyi ma dem toos rek jar na ko Bienvenue sur Salam Vision.